aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin amin asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi teewul ak a seetaan ak a bàyyi xel seen seen bu mag bii seen télé seen télé bu mag bii di Allo Dakar TV International indi na leen émission bees mooy seen émission xam-xamle xam-xamle émission la boo xam ne si li ko tax a jóg mooy mbooleem lu jëm ci wàllu xam-xam ci wàllu asrar sëriñ si nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu ñaan ci wàllu asrar ci wàllu xaatim ci wàllu firi gént ci wàllu istixaara sëriñ yi nga xam ne si dañuy faj ci wàllu garab lu mel ne garab pomme njariñ li garabu carotte garabu euh, maanaam soble garabu dimbu garabu looro garabu wen garab yooyu mboolem koo xam ne kii ab sëriñ nga di ci di ci di ci faj koo xam ne kii da ngay faj jàngoro yi lu mel ni émorite lu mel ni feebaru bët lu mel ni ndoxum siti lu mel ni feebaru biir émission bii di xam-xamle yaa ko tax a jóg ak mboolem koo xam ne kii yàlla dafa dogal da ngaa mën a firi gént wala nga mën a istixaara nga bëgg ñu dalal la ci émission bii di xam-xamle pour sa xam-xam mën a jàll ci Allo Dakar TV international euh, mën naa nekk Euh, boo wootee ci numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi dana mën a nekk incha allah bu ko defee boo ci wootee rek da nga jot sëñ Mor Tall Tawfekh di nga ma mën a jot boo ma jotee daañu la dalal ci émission bii di xam le mën nga woote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woote ci 78 592 64 54 78 592 64 54 seen émission xam-xam la ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawfekh fii seen seen télé bu mag bii di Allo Dakar TV international jërë ngeen jëf.